les chefs de village yi parce que sunu plan de communication gis ngeen ko ci weer yi génn dem nañ ci région yi gis nañ gouverneurs yi gis nañ préfet yi sous préfet yi communes yi également dem nañ fa waxtaan ak maire yi mais euh, chef de village yi dañoo nekk mayon bu am solo trop trop trop ci wàllu yorenu suuf parce que ñoom ñoo nekk ci village yi euh, loolu tax ak euh, président des association des village tey jii ñu woo leen fii ci Dakar pour présenter leen projet bi waxtaan ak ñoom euh, pour ñoom ñu jox ñu seeni xalaat ñun aussi ñu expliquer leen projet bi ba nga xam ne bis bu ñuy dem ci terrain bi di liggéey ñu ànd ko ak ñoom euh, ñu rafet xalaat lañ ñu xam suuf lañ également parce que loolu ñoom dañ koy dund chaque jour bus bu nekk ñoom ci seen gox goxaan yi dañuy régler ay problème mu suuf ci foofu également ñoom ñoo xam ci cosaan ñu suuf si tëdde ak nan wan yoon la ñuy mën a aw ba bu ñuy liggéey du am benn coow ak aussi ñu jël seeni xalaat utiliser ko ci projet bi mais utiliser ko tout simplement ak communes yi ba nga xam ni coowal suuf dina mën a gën a wàññeeku ci niñ koy yore ci gox-goxaan yi. waaw jafe-jafe yooyu ñu wax du caagi ni dafa am léegi mais dañ koo njort. ni bu ñuy dem ci terrain bi mën nañ faa dajek ak ay conflits foncier parce que boo waxee ni da ngay ñëw euh, natt suuf euh, indi fa ay jumtukaay yu bees ku nekk mën na tëb ni sama suuf la sama kii loolu ay jort yu ñu am la te njort yooyu nag bu ñu ko amee lu ñu war a waxtaane la ci biir waxtaan boobu également kenn mënu cee dàq chef de village yi kenn mënu cee dàq population yi donc lu ñu war a toog la péncoo ko waxtaane ko ba trouver ci solution ci wàllu institu risque institutionnel également euh, suuf dafa bëri ay enjeu saa yoo jógee rek service bu ne dina taxaw ni ah lii kat sama compétence la kii ni sama compétence la kii ni sama compétence la yooyu yëpp également mais processus bi nga xam ni utiliser nañ ko pour bi ñuy def taxawal projet bi mooy li ñuy wax processus inclusif ci wàllu exécution projet loolu la ñuy continuer maanaam dajale service yëpp waxtaan ak ñoom di di di di xàccandoo di doorandoo loolu également yaakaar naa ne ñun bu ñu ko defee comme jumtukaay du am du am benn jafe-jafe. waaw projet bi macha allah bëri na avantage euh, parce que su ma jëlee rek euh, ci maire yi communes yi nga xam ne choisir na commune bu ne leen la tabaxal bureau foncier boo xam ne dañ koy équiper boo xam ne dañuy jël benn agent foncier def ko fa agent foncier déjà commencé nañ ko ñun former. waa université de Dakar ESEA commencé nañ ko waa université de Thiès commencé nañ di leen former fi mu toll nii rek formé ko nañ lu ëpp 70 agents foncier ci cent 138 yi euh, dinañ leen defal li ñuy wax système d' information foncière ba nga xam ni lépp lu ñuy joxee suuf dañ koy dugal ci benn machine xam day am traçabilité am transparence ba nga xam ni léegi bu fa benn équipe municipale jógee sax la fa doon cosaan ci joxe suuf yëpp dina nekk ci machine bi ba nga xam ni kenn dootu ko mën a falsifier loolu également lu am lu am solo la dinañ également dooleel service état bu baax ci ni ñuy saytoo suuf lu mel ni cadastre lu mel ni agence nationale d'aménagement du du territoire am nañ investissement yu am doole yu état bi jënd pour jébbal ko service yooyu mu ngi mel ni ci li ñuy wax ay images aériennes ay images satellites yooyu yëpp jënd nañ ko pour. yombal liggéey bi li ñuy wax également ci wàllu géodésie station Corse yi également ñeent lañ fekkoon Sénégal ñun dinañ ci yokk yeneen 18 muy 22 station Corse donc dinañ densifier bu baax réseau bi parce que yooyu bu ñu ko amul ni ñuy natte suuf du mën a nekk parce que loolu mooy li ñu wax point de repère yi ak yeneen ak yeneen investissement yu am solo yoo xam ne ci wàllu formation la également dinañ former gën a jàppale administration territoriale ci formation bi communes yi maires yi commission domaniale population bi ci wàllu tënk daal mën nañu acteurs yëpp incha allah dinañ ci boole journalistes yi déjà bénéficier nañ de formation parce que euh, ci région yëpp euh, seen mbokk yi fa ne aussi defoon nañ fa ay session ba boole leen ci formation bi pour ñu gën a xam lan mooy projet bi également lan mooy yorenu suuf. commune yi ñu tànn téeméeri commune la ak fanweer ak juróom-ñett bi ñu koy tànn nag. Euh, dañoo cee ànd ak waa association des maires du Sénégal ak service technique yu bëri aussi bi koy tànn dañoo teg ay principe ak ay critères bokkoon na ci principe yi ñu ni dañuy fexe ba région yëpp seddu te fi mu toll nii région yëpp seddu nañ waxoon nañu également commune dañu leen regrouper par grappe pour mu efficace mais également dañoo teg ay critères ni zone yi nga xam ne coowal suuf dafa bëri trop zone yi nga xam ne am nañ ay potentiel économique bu baax ak zone yo écologique bi ñu jëlee loolu wut ay données ci ANSD wut ko ci service euh, domaine ak yooyu yooyu yëpp nag la ñu la ñu jàngat ba àgg ci choix bi loo tax bi ñu ci paree macha allah AMS d' accord ci acteurs yëpp d' accord ci ni choix ni ñu tànnee communes yi rafet na dañuy ñaan kay projet bi réussir ba ñu mën koo tas ci communes yeneen yëpp yu Sénégal. ci chef de village yi macha allah. chef de yi dañu dañu xamoon jafe-jafe yi nga xam ne moom la état bi jànkonte avant population yi tollu woloon nii en 1960 on était 3 millions cent mille rek la ñu woon suuf si nga xam ne foofu la ñu doon moom la ñu doon exploité suuf soosu day wàññeeku ba pare te population bi di yokku famille yi di yokku donc il faudrait quand même ñu trouver une solution pour que bu jafe-jafe am amee ñu mën ko résoudre mën ci jafe donc projet bi bu ñëwee ne nag dafa bëgg indi solution indi la sécurisation de ce foncier donc vraiment ñun ñun chef de village nous ne disons que remercier loolu satisfait de féliciter le président de ce projet la boo xam ne indi nañu ay saafara indi nañu ay ay armes yoo xam ne moom la ñu mën a jëfandikoo pour régler problème yi nga am buy am euh, au niveau de tous les villages ñu rafetlu ko bu baax a baax chef du village yu région yëpp teew nañu fii les quatorze régions euh, teew nañu fii te région bu nekk son président moo ñëw ñu waxtaan noon ne ja am nañu jafe-jafe te jafe-jafe yi foofu fokk nguur gi jàppale ñu pour bu lépp lu xew lépp lu xew rek ñu mën ko résoudre ñu boole ñu ak ce projet la de de de sécurisation du foncier ñu rafetlu ko bu baax a baax yaakaar jàpp nag am nañ un partenaire fiable boo xam ne dinañu mën a jàppale ci li nga xam ne moom la ñu jànkonte à chaque fois dans le quotidien problème yooyu yaakaar nañu monsieur le directeur yaakaar nañu ne la main dans la main danañu jàppale suñu population parce que c'est un devoir c'est un devoir d'aider les populations le chef du village a opté a opté dafa opté dafa taxaw ne dama bëgg sacrifier suma lépp pour jàppale population yi jafe-jafe bu am mu trouver une solution te solution yooyu avec euh, ce projet la yaakaar naa ne euh, tous les problèmes la là seront résolus